boroom xam-xam yi danoo ñëw si man di ma wax seen cofeel si yow ak ni la yàlla may dégg dégg gi mooy man wax la sëriñ bi wax man wax li boroom bi bint ba pare dugal ko ci biir xolu nit ñi loolu la la yàlla defal man ko wax man ko dugal ci xolu nit ñi looloo tax kuy tiijaan kuy murit ku bokk feneen ñépp nga saf leen wax naa ko bërk démb bi ma demee euh, Grand Bassam nee naa leen man Sëñ Tuubaa daf ma gënal lépp waxoon naa ko sëñ Cheikh Sidi Maxtaar waxaat naa ko sëñ Muntaxa nee naa leen su su ngeen ma waxoon bu leen dem bul demati ndakaaru waxuma def politik waaye lu ma mënul fekk Touba soxlawuma la kon man sëñ Touba moo ma gënal sama lépp. di delloo am nuyoo rek ne ko alxuraan santaane di fedd la suji diggante ak yow ndax diggante bu yàgg rek te lépp rafet. loolu nag bañ la xamee ba nëgg ni ak mboolem ku la xam ku ne rek li li jiitu ci li xelam di jëkk dem mooy sag taalibe bi Sëriñ Tuubaa ak sag bëgg Sëriñ Tuubaa ak sag bëgg yoon wi ñu la ko suñ Cheikh Baara seerale léegi rek yoon mbur yëpp loolu lañ xam ci yow te yàqut nag sa digg ak yeneen tariixa yi ci des kenn ku ci ne cër bu mu am ci yow jox nga ko ndax li ci firnde mooy sa digg ak Sëriñ Cheikh Tidiane ak yeneen tarixa yi loolu day wane jikko ju rafet rek ndax loolu mooy li ñuy wax attaayush asilmi kon ñu lay delloo nuyoo ci bisu màggat gi nga xam ne ñëw nga ngir màggat si te tubaa nga fi kër yu bari kon loolu day firnde ne sa digg Touba du tay dëmb la di rafet it sa taxawaay ci yoon wi ndax lu xew ci yoon wi rek. sa jëf dem fa sa ndaw dem fa nga ànd ko ñoom bu dara xewut tam yaa ngi ànd ak ñoom ci lépp loolu nag eh, Serigne Touba rek a tax nga di ko jëf Serigne Touba mi tax nga di ko jëf nag gis na ko kon ñu ngi ci dara jàmm rek na fayal la boppam te Serigne Touba kenn du ko jëfal di ko rëccu li nga wax léegi it la la Cheikh Mouhamadou Mountakha seerloon ci kanamu àdduna doy na sëkk. te loolu rek mooy li am soo te mooy dëgg ndax ku fi ku lu toll ni ku fi nekkal Sëñ Tuubaa seere la kàddu yooyu ci kanamu àdduna te mu wóor leen muy wax yàlla rek a tax mu di ko wax yàlla rek a tax mu di ko seere loolu doon na sëkk kon bu ko kenn xamutoon itam seen seeram su doon na sëkk te mboolem njabootu Sëñ Tuubaa ku fi ma sa nekkal Sëñ Tuubaa ku ne tërëbiyoo nga ko ba làq gërëm ci Serigne Saliou Mbacké ak la ko jëkk Cheikh Abdoul Cheikh Abdoul Khadir Serigne Saliou Cheikh Mahmoud Lamine Bara moom sa digg moom li cëpp daan daa ko fekke moo tax néew na ma nett li ci biiru xilaafam dara te tudduma la ca ndax li ci ëpp ñoo ko daa ànd Cheikh Sidi Moukhtar itam dégg nga ba taay bu ma sant accès wala mu gëj laa dégg dalee wax dama lay namm loolu nag kon ab cër la ci yow boo xam ne loo jëflante ñoom la jëflante woo jaboot Sëriñ Tuubaa yëpp Cheikh Mouhamadou Mountakha mi itam fàttaliku naa lu jëkk doon ko Sëñ Tuubaa boo ma Sidi Muxtaar fi nekk mu wàll bis am lu lay digal du loo xam ne mënu si ko wax ci rajo nga ne dama bëggoon nga def nii bàyyi lii te loolu néew na mu wax ko nit ndax Sëñ Mountakha mbirum politique du doxinam kon loolu lépp ab cër la boo am ci moom kon nag loolu te ni mu ko amee ci ñi fi nekkal Sëñ Tuubaa njabootu suñ tubaab yëpp cër boobu nga am ñoom sama diggee yow nag ni nga ko waxee rek mooy mooy li ci mujj moom sa jàpp ci man sa cofeel sa bëgg dara desu ci àdduna sépp xam nañ ko ku la ku ne xam ne cër bi jox ak jàpp gi kon nag ñu itam ñu ngi yeesal suñ diggee yow di ñaan yàlla sàmm ko ndax sëriñ Tuubaa daa wax nan ku mën a fas kóllëre mooy koo xam ne bu jàppee ma dama ni may fasante nit kóllëre mooy bu jàppee ma jàpp bu bàyyee ma jàpp ndax wa awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'uulan kóllëre suñu yoon boo ko fonk ba bokk na ci ñu laaj boo liggéey kon nag képp koo fasantil kóllëre gi leer rek war nga koo jàpp kon nag ñu ngi koy fedd li ceew di sant bu baax nag di la gërëm cant guñ tibb ci suñu xol ndax sëñ bi daa wax naan nit kuy jëm kuy dem ci barab ku ne jëmmoo la fa seet bu ko fekkee toog fa bu ko fekku na day gàddaay waaye liñ am ci yow ci cër lépp jox nga ñu ko ba jox ko lu ko ëpp kon nag ñaan suñu borom sàmm kóolal gi te jàpp te te dëgëral ko te yàlla mottali seen yéene dëgëral seen taxawaay. salaatu Mustafa